peut être réew mi bokk ci ñi nga xam ne ne dañuy samp seen dënd donc noonu la ko waxee donc ci phraséologie la ko dugal donc waxul mu clair carrément mais Macky xam na ne comme nuñ koy ne junj doy na boroom xel rek moom comprendre na fan la Idrissa Seck bëgg a yegg parce que tamit amoon na ay temps yoo xam ne ma ki Sall amoon na yéene ne bés buy génn réew mi buy génn ci pale ba da koy jéem a Idrissa Seck lay juital peut-être que nag loolu la ko doon rappeler ne ko musoon nga maa wax lii waaye ba léegi man maa ngi ci li ma doon xaar ba léegi yow rek laay déglu maanaam wax na ko ni que léegi nag yow nag fu mu nee nii troisième mandat daanaka yow léegi nit ñi ñoo la ko bañal askan wee cee nekk ñoo la ko bañal mais. am na ñu la jege ñoo xam ne ni mën nañu nekk président te xam naa ne boppam tamit ma nga ca ci ñu mu xalaat ne que tey jii mat nañu gannaaw Macky Sall bu demulee def troisième mandat war naa mën a bokk ci langue bi pour mun a péetalee maanaam doon président de la république mais loolu nag day fekk nag askan bi ñoom ñoo koy nangu. d' accord les faits koy nangu ci jamono jooju Léopold Tamba conseil présidentiel jëm ci wàllu développement ak yokkute Thiès euh, amal nañu ko ni ki dem ñu bëri xam nañu ko waaye dañ cee waxul nag euh, lu jëm ci wàllug euh, kaaraange jëm suñu wàllu wirgu yaram muy sécurité sanitaire surtout nag tukki ci produit horticole yi nga xam ne ñooy jugee ci boobu lekk région mu doon région bu nga xam ne mën nañu jàpp ne am na lu toll ci fukk ci ay quai de pêche ak qualité ak qualité produit yi nga xam ne léeg duñu ko certifié tukkee ci ab laboratoire loolee nag la ñaawlu moom vice président bu association des consommateurs du Sénégal Mamat Cissé lay wuyoo wax na ne programme triennal d' bi nga xam ne moo soxal atum 2023 2025 ca Thiès ñu ci daal di xayma koppar gu toll ci fukk juróom ci ay junni milliards ci sunu koppar waroon ci mën a nag euh, bàyyi xel bu baax a baax lu jëm ci laboratoire d' analyse yi nga xam ne moo soxal ay produits horticoles ngir mën a garantir alimentaire Mohamed Cissé ñu teewlu kook euh, Simon Pierre Faye Thiès dafa am particularité boo xam ne lu ci bëri Sénégal di lekk ñu ngi koy bayee ci ñaay bi at ñuy lekk jën at produit de la mer yi nga xam ne région de Thiès lañ koy jële waaye boo xoolee contrôle bi tubaab day wax limite maximum de résidus de pesticides ndax ñu ngi koy analyser ni mu waree au quotidien déedéet donc mënuñu émerger di am ay pont di am ay infrastructure te laboratoire bokk ci moo taxoon ñu xelaat ne war nañu jël en ci ci plan triennal bi infrastructure bi comme laboratoire d'analyse loolu day tax consommateurs yi ci bopp ñu mettre leen en confiance ci ñuy lekk ci produit horticoles yi la même chose aussi ci les produits de la pêche ndax lii génn ci géej gi ndax ñu ngi leen di analyser déet dañu leen di xool rek ci bët ne baax na wala baaxul loolu ne war nañ ne def quand ay infrastructure comme laboratoire ngoog ñu des ba léegi ak vice président Basko Sène bi nga xam ne itam euh, yëkkati na ay kàddoom jëmale ko ci adoption ni ki démb ci conseil des ministres décentralisé ci benn dëkk ñaari gar Thiès euh, projet soxal décret euh, bi nga xam ne mooy wàññi lu jëm ci loyer bi ak beau usage d'habitation yi jàppale ne itam ginnaaw fëfeeru conseil constitutionnel conseil des ministres jàpp nañu ne moom moom Momat Cissé bu Basko Sène ne njiitu réew mi nag ak ñi mu àndal dañoo war a mën a taxawal gaaw ci ab euh, sous cellule wala euh, kuréel bu nga xam ne dafay euh, saytu bu baax a baax wàññu teg yooyu lekk lu yaas ba rek mën a gën a yërëm askan wi nga xamante ni ci wàllu location bi moom daanaka ñu ciy dund lu yàlla xam doy na ñu teewlu ci ba léegi Momadou Cissé ci leeral rafetluñ ne nag ci conseil des de décret bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci baisse des loyers yi ñu daal di ko jël mais ñu bëgg nag ministère du commerce aussi gaawal jëmmal commission de régulation bi nga xam ne moo koy war a accompagner te nekk diggante bailleurs yi ak locataires yi loolu daal ñu définir les missions definir aussi ñi koy composé bu ko defee liggéey bi daal di mat ñu daal di jublu ci li nga xam ne moom la Sénégal yëpp doon xaar ci baisse des loyers 2014 loi bi Léopold Tamba amoon na ñagas ñagas waaye 2022 23 gis nañu ne euh, tëggaat nañu ko léegi nag njiitu réew wala gouvernement bi ñoo yor seen cëggal guy ñoom rek ñoo mën a kon xettali askan wi bu ñu sukkandikoo ci Momar Cissé ci wàññu teg bi gën a mën a ñoŋ waaye itam fexe ba andi ñi di bayeeri boroom kër yi nga xam ne lu leen neex la ñuy def nag seeni kër yi euh, di bum du bum mi loole mën a dakk dana daana amaat parce que su dee par exemple euh, décision yi nga xam ne ñu jël ñu war a baral mbir yi pour que très rapidement ñu mun a installer lu ñu war a def ba pare ba pare am ay commission yoo xam ne ni ñoom ñooy suivre ñoom ñooy suivre mbir mi ndax euh, ñi nga xam ne ne ñoo di locataires yi ak ñi nga xam ne ni tamit ñoo moom seen kër ak ndax mbir maa ngi dox normalement nu ko état bi bëggee ndax loolu mu ngi am am déet mais li ci des mooy ba léegi président de la république bi waxu ci carrément ba nit ñi dégg ko mais xam naa ne lépp ci moom la aaju ndax tam da ko jël jox ko ministre du commerce ak ñi nga xam ne ne tamit dafay am kuréel boo xam ne day nekk sur le terrain ñuy mën a di surveiller di xool ndax euh, disposition yëpp yu ñu jëloon pour que ñu mun a wàññi li nga xam ne mooy loyer bi ndax ñoom ñu ngi koy respecté parce que bële chose gis nañ ne que ñi nga xam ne ñoo di li euh, moom seen kër dañoo mujjee jël yeneen paramètre dugal ko ci ba nga xam ne ne presque sax dañoo jàpp loyer bi dafa gën a dafa gën a kawe mais tey jii nag maintenant il faudrait que ñu réfléchir ci loolu et aller très vite en besogne fexe ba nga xam ne ne lépp loo xam ne ne bëgg nañ ko def ci lii moyen pour wàññi location bi ce serait une très bonne chose mais il faudrait que mu am ay commission ak ay nit yoo xam ne ne dañuy wàcc sur le terrain di surveiller ndax ñi ngi établir dëggantaan li nga xam moom la état bi bëgg. la République ginnaaw Thiès samedi ñu ngi koy xaar di ca Mbour jëm ci wàllu ko tournée économique bi nga xam ne euh, ci la nekk tax na mouvement ak euh, kaddu mbuur ñoom itam euh, bejj nañu ci kaw taabal bi jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu amee te bëgg itam njiiti réew bi bu ñëwee mën koy saafara bokk na ci wàllu ko assainissement ñàkkum infrastructure ay jumtukaay yu mën a sukkandiko ngir seen gox boobule mën a développé am naataange waaye tam yokk bu baax a baax ca noonu itam beneen càkkuteef bi nga xam ne yàgg na mu toll tey ak itam euh, ni mu mel euh, ci wàllug euh, démographie ñu def ko rek région loolu nag Cheikh Ndiaye mooy président mouvement kaddu Mbour seq na waxtaan ak sunu ndaw ba fa nekk di Aline Badara Sonko de la république Macky Sall ñi koy xaar ci samedi bi ci mbuur mouvement kaddu mbuur di ko yebbi yenn jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi soxla nañ ko lool. war nañu am hôpital boo xamante ni hôpital niveau 3 la yàgg dañu ko promettre nag ba léegi chaque jour ñu ni suba lañ koy teg grêt suba lañ koy teg pierre donc urgence la boo xamante ni du nekkati ay promesse mais euh, aussi ñu délocaliser ko ut benn espace bu mag ñu délocaliser ko parce que fi mu nekk xam na évasion yi li tax muy bëri parce que fi mu nekk moodul place prison grande instance parce que Mbour nekkatul euh, département Mbour tribunal grande instance la am léegi donc Thiès amatul il faut ñu délocaliser tribunal tabax beneen tribunal bu tax bu mag a mag dañ koy gën a ñaan tamit aussi mooy soxla nañ centre culturel ñun waxuñu maison culturelle waxuñu ab chambre culturelle centre culturel bu mel ni Sorano wala grand théâtre dañ koy ñaan président aussi bu ñëwee. beneen bi nga xamante ne waa Mbour yàgg nañ ko sàkku mooy que mbuur ñi daal di koy def région. ñun yàgg nañ combat depuis quatre-vingt-douze que Mbour dafa war a nekk région parce que li tax Mbour war a nekk région man wax naa ko développé ko développé waat ko bu bëri. parce que boo nekkul région mënoo am des infrastructures régionales président ñu ngi koy ñaan rek ci sama discours bi te mu defal ñu mbuur région te dañoo bëgg nag amul ay bëgguñu promesse dañoo bëgg mu signé décret bi semaine prochaine que mbuur dañ koy décréter mu nekk la région de la petite en tout cas samedi bi président de la république Macky Sall nar a amal tukki nemmeeku ci bërëb yi nga xamante ne ñooy Popenguine Malicounda ak Mbour ngir inaugurer fa yenn ci ay infrastructures yi nga xamante ne jot nañ ko fa amal Malicounda Mbour kon ñoo ngi fay xaar njiitu réew mi président de la République ñu wax ci leneen wàllu politique ak tension bi ñu nemmeeku jamono ji ca Bawol diggante euh, kon Mbàkke ak tund yu ko wër di région bu Diourbel mu mel ni kon meetingu ak parti Pastef les patriotes ginnaaw gi ba nu ko tere bu seen ay ñoñ ne dañ koy amal par force loole nag moo juru xët-xët gi force de l'ordre yi muy takk der yi ak militants yi sympathisants yi euh, doon sànnante xeer ak i euh, grenade lacrymogène ñi di taali pneu en tout cas jafe-jafe la jamono ji tax na itam coalition Yewwi Askan Wi yëpp daanaka ñu ci ci leader yi ña fa woon euh, doon ñaawlu itam euh, li ni mel dañu fay fekk ci